sëriñ ahmadu badawi mbàkke di kenn ci njabootu sëriñ mouhamadou fadal mbàkke ibnu xaadim rasul moom jëmu jilee mi ngi gën a jamono ci tàmbaleb atum 1960 sëriñ fàllu daal di koy tudde sëriñ ahmadu badawi mi nga xam ne nii ab boroom xam-xamu suufi la woon bu dëkk égypte moom sax moom mooy fondateur tur bi ñuy woowee ahmadiya ginnaaw ba sëriñ fàllu mbàkke demee màkka ci atum 1928 tase fa ak moom ci la ñu daal di am ay diggante yu rita xaritoo tax sëriñ fàllu daal di koy duppee sëriñ ahmadu badawi Badawi Mbàkke mi moom sëriñ Badawi mi ngi tàmbali am njàngum alxuraanam ci dëkk bu ñuy wax Taïba Dakar ci mbokkam mu ñuy wax euh, sëriñ Moustapha Sylla ibnu sëriñ Masayar Sylla ginnaaw bi itam mottali na am njàngam ci ay xeeti xam-xami diine yu takkoo takku fii ci biir dëkk bu sell bi di Touba ci jumaay Touba ci sëriñ El Hadji Mbacke Jaxate ginnaaw bi ngir sàkku xam-xam ak gën a yaatal li nga xam ne moom moo jëm ci yeneen xam-xami diine yi ci la daal dem ci dëkk bi ñuy wax Ndar ngir daal di fay jànge ci institut Al Azhar bu Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke ibnu Khadim Rasoul foofale fa la jàngee arab waaye ay téere yu takkoo takku ko lu ci mel ne daaliya muxaddimaat ak xaririya ak shuara téere bi ñuy wax xilaasu zahab ak yeneen téere ci ku ñuy wax sëriñ siyaan waaye itam mu jàng xeeti xam-xam yu takku te yaatu tam yu moderne ci Serigne Samba Ndiaye mi nga xam ne mo nekkone directeur institut Al Azhar ci yooyu jamono ginnaw bi Serigne Ahmadou Badawi mbake jotté certificat élémentaire d'excellente qualité ci institut Al Azhar ci la dem ci réewum Égypte tàmbali fa jang ci yenn ci ay école ba am fa lañuy wax certificat secondaire ci atum 1986 ginnaw bi ci la dem ci université Al Azhar ci faculté commerce ak administration fofu le mu amay fa ay lijaasa yu takku lu ci mel ay lijaasa ci comptabilité publique ci atum 1989 ak 1990 ginnaw bi ci dal di dem ci réewum France ci institut supérieur bu sciences économiques ak sociales. li nga xamné dañ ko affilié université bu Sorbonne ginnaw bi tam ci la am li wax certificat de troisième cycle spécialisé en économie du développement manam lijaasa yoo yo xamné ni day jëmmal né mom mi xam xama màcc na jëm ci walum koom ak li nga xamné mom moom koy yaatal ginnaw bi foofule am na fa yeneen lijaasa yu takkoo takkoo takku yu firndeel ne moom sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke am njàngam ci lu jëm ci wàllum finance commerce ak lu jëm ci wàllum développement ay lijaasaam kawe na ci ginnaaw bi jël daal di ñibbisi fii ci réew bu Sénégal l'organisation d'unité africaine nag daal di koy jël ngir mu liggéey foofale waaye tere terewul moom sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke mu daal di fay bàyyi lépp ngir ñëw liggéeyal maamam ju tedd ji sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul fii ci dëkkam bu tedd bi koom-koom waaye itam lu jëm ci wàllum développement ci xilaaf ak Serigne Saliou Mbacke ci la ko joxe ndigal ngir mu daal di sos li nga xam ne moo di ab zone industrielle ci dëkk bu sell bi di Touba. jamono jii moom mooy coordonnateur bu daayira Rawdu Rayaahin bi nga xam ne moom moo lëkkale mbooleem boroom xam-xam yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. waaye tam moom Serigne Ahmadou Badawi Mbacke moom moom usine bu siiw bi nga xam ne day defar ndox ca Bogo ñu koy woowee ay nu ngir jariñ dëkkam jariñ askanam waaye itam taalibe yi nga xam ne ñoo yeewoo ci biir dëkk bu sell bi di Touba ak waajuram wu sell wa sosoon moom sëriñ Ahmadou Badawi Mbàkke def na fa ab école bu mag a mag toftal ca daaray alxuraan ju yéeme ay junni junni taalibe di fa jàng di fa wattu alxuraan te duñu fay benn dërëm ginnaaw loolu itam tabax na ab centre de santé bu mag ca Ndindi boo xam ne ni jëwriñ ji gàllu lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram Abdoulaye Diouf Sarr moo ko inauguré moom sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke ba léegi dañu di gëstu waaye itam di gàlloo ay liggéey yu am solo ci yoonu murit rawatina ci lu jëm ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne sëriñ Mountakha basiiru Mbacke sumb na ko. yenn saa itam ki nga xam ne di xalifa général yenn ndaje yi nga xam ne day am ci biir réew mi moom Serigne Ahmadou Badawi mi lay wóolu di ko ca yónni mu nekk ku effacé wu daanaka ñu bëri dañuy dégg tur waaye xamuñu jëmm ji ab liggéeyam itam daanaka du cay bëgg di fës lool mu doon ku noppi waaye itam ku ànd ak dal di liggéey liggéey bu am solo ci màggalu Kazu Rajab ak lu jëm ci organisation bi waaye ànd ak liggéey boobu la doo ko gis mukk ci kanam ci ginnaaw rekk lay toogee